li ko waral mooy ci ndigalu président de la république président Macky Sall bi ñu gisee ne ay jafe-jafe am na fii pour askan wi am ndox mu doy ci yenn quartier yu bari ci Touba mu ne lépp luñ ci war a def rek nañ ko ci def looloo tax démb directeur général u OFOR bi mu jógee Dakar Medina Gounass ñëw na fi def visite de terrain ci guddi gi minuit mu départ dakaar ñëw fanaan fi pour euh, ndigal boobu ñu ñu jox mu doxal ko li ci njëkk nag moom lañuy wax mooy massawu askan wi nga xam ne fi mu nekk nii ñu ngi am ay jafe-jafe ndox ci seeni kër ak ci seeni soxla yu ñu war a jëfandikoo ndox waaye di leen wax ne loolu bi mu amee gouvernement bi ci taxawaayu OFOR jël na ay dogal benn ci dogal yooyu mooy juróomi forage ñoo fi paan ci fanweer ak ñeent yi nga xam ne ñoo am Touba waaye juróomi forage yooyu paan dafa am njeexital bu mu am ci manque ndox ci ay quartier yu bari juróomi forage yooyu bi mu paanee mu daje tamit ak kamiyon bi nga xam ne moo war a jëli pompe yi ci biir suuf si ci biir ndox mi pour yëgal ko pour ñu seet nan la paanee ak lan lañ ci war a defar juróomi forage yooyu li nga xam ne moom lañu xalaat ne mooy paan bi ci pompe yi la pompe yi nag gis nañu bi ñu nekkee fële ci forage wu njurul bi pompe boo bu bees boo xam ne bii jëlee nañ ko dakaar mu ñëw ginnaaw démb bi ñu essayé réparer pompe bi fi nekkoon te réparation bi baaxul bi ma laajee ñu ko indi ndax mën nañoo yëkkati pompe bi pour essayer ko dem tegi mu ne ma pompe bi juróom-ñett téeméeri kilo lay pesé looloo tax pompe yooyu pour jëlee ko ci biir forage bi remplacer ko il faut que mu am grue maanaam ay lenge bu koy jëli ba pare pour génne ko pour ñu réparer ko wala pour ñu remplacer ko yàlla dafa def nag juróomi forage bi mu paane ñu am nattu lenge boobu nekkoon fii Touba di ko war a yëkkati moom tamit mu paan bi mu paanee ñu loué benn grue bu njëkk benn lenge yeneen ñaar war cee topp yeneen ñaar yooyu danañ ci boole yeneen ñaari équipe mu am ñetti équipe yoo xam ne yii ñooy sóoru juróomi forage suñ ko liggéeyee xalaat nañ ne fekk ginnaaw suba su amul benn accident ci diggante bi juróomi forage yi danañ ko réparer mu commencé indiwaat ndox léegi mu am tamit yeneen juróom-ñeenti forage yoo xam ne liñ daan manque ci ndox suñ daan manque téeméer léegi xëñ na juróom-ñaar fukk wala juróom-ñetti fukk lañuy ñuy manque lolu li gëna jamp mo doon forage yi panne dañ ko défar suñu paré djublu ci nous wax nañu tamit war nañu jël mesure mesure yoyu moy des OFOR bi nga Touba unité de maintenance de Touba dañ koy renforcer ci ay agent yu fi liggéey kiko jité néna na mën agent def su procédure yi pare wax nañu tamit ñu yokkal leen kayu liggéey bi jitu ci jumtu yi moy camion citerne camion gris bu bees moy lenge bu bees bo xamni bi moy dem di jëli euh, pompe yi lolu inshallah aussi lu jitu li sax altiné bi passé euh, déedéet alxames bi passé premier ministre def na ben dajé bo xamni bi jëloon na dogal bobu pour ñu jëndaat beneen camion grue suñu paree tamit wax naa leen comme yaakaar nañu ñoom ne ci problème yi ñu am xaj na électricité bi ñëw ñi mu ak doole am na ci njeexital ñu seet tamit nan la ñuy defee fi nga xam ne mën nañ koo def ay panneau solaire manam énergie solaire mais loolu il faut que balaa ñu def ci benn forage il faut que mu am surface bu mag pour ñu def mañ faa def panneau solaire yi loolu tamit

bi mu amee rek idi dañu juróomi camion citerne léegi danañ ko yokk ñu ngi koy yokk ba fukki camion yenn yi commencé naa ñëw yeneen yi ñu ngi déparé ci daaka bi di ñëw tey jii ci guddi gi war nañoo yegg si wala su